mbokku internet UBZ TV ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen baalo àq nag ndax bi nu jullee ba tey gisu leen ñu mbokk yi ñu leen di baalo àq di leen ziare bu baax a baax a baax di wax ne kontaan nañu ñi ngi gis commentaire yi ñu ngi gis message yi hmm? yéen a ñuy encouragé di nu may doole yéen suñuy internet ñi ngi leen di jaar fu ngeen mën a nekk di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yokk seen ay xéewal tabaski gi ñu koy teewee ay ati ati at ci barki Serigne Touba ñi ngi leen di jaar bu baax mbokk yi tey dellusi nañ indil leen seen champion seen champion nag euh, tey ki nu indi di ko miin hmm? Alaaji Xaaye Gueye bu bu Sénégal Alaaji Xaaye Gueye bu CNG ah euh, vice président ah, chargé organisation des CNG moom lañ leen indil tey Alaaji Xaaye Gueye bu ngeen déggee introduction bi nag xam ne am na coow lu am ci làmb ji moo tax te ñaari côté yëpp ñun la ñuy bëgg di leen dégtal tey ñu indil leen ku nekk CNG Alaaji Xaaye déwénati Ah. waaw asalaamaaleykum mbay sama jarbaat maa ngi lay nuyu bu baax di la wax yow fekkeel déwén di la nuyu di nuy sa site internet bi site bi di nuyu boroom muy suñu xarit di jàmbaar ci réew mi yow ngay jàmbaar ci réew mi di suma jarbaat ndax sa nijaay Saal ak man ku ne xam ne collègue bi nu yàlla boole ngay xale bu am maana di may defal sa liggéey bu baax ndax euh, yaa ngi koy teg ci yoon maa ngi lay ñaanal yàlla def la ngay mag te li nga bëgg ci média bi yëpp yàlla defal la ko. maa ngi lay balu di la balu àq képp ko xamante ne yaa ngi seetaan BG TV waaw. ana ana ana sama jarbaar yi joxagul ma waa sama wàll ci xar mi. waaw loolu dara xam sama doomi ni jaay. du dara loolu problème yoo koy bu ñu dem kër ga rek xam nga yaa préféré nii yaa préféré fii mais bu lool kii yéen ñu dem ci salle bi waaye comme da préféré fii euh. amul problème euh. waaw. ay ca mbokk yi ni leen ko waxee alaaji Xaaye Gueye lañ leen indil tey ñu gis euh, démb bërki démb coow am ci làmb ji ah waa rente DKR euh, gaa yooyu nga xam ne ñoo jiital Pape ñoom Alain ñoom Jimbo tëggoon làmb ju neex nag wax dëgg yàlla ju ju bari ay mbër yu am maanaa ñu ko doon xaar ci dimanche bi mujjeewul am euh, tunga ne nag du teew ñuy natt ci ëkk dégg nañ ci version bu nekk nag ci côté promoteur bi mais comme ñu ngi door am ku nekk CNG euh, loolu nan la demee Alaaji Xaye waaw mbay ñu ngi lay nuyu bu baax di la yëgal ni la ñun CNG lañ bokk waaye bu dul CNG tamit ci làmb lañ bokk ndax ku ñu xam ci làmb xam ne amateur yi làmb lañ maanaam lii ma bëgg a wax mooy mm, ngësam li niw dañoo ñor tàbbi dañoo bokk ci làmb bu bokkee ci làmb nag làmb coow lu toll nii am man soo sàkkoo di sama jarbaat ci man ma wax mën naa ci wax li ma ci xam man nag du ma porte parole du CNG CNG am na porte waaye nag li ma ci xam laa ci wax te li ma ci wax moom nit du ko dindi. ndax wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa te sama ñaari bëgg gi xam naa ne raqib ak atiid ñoo fi nekk di ma seede. coow nag lu toll nii bu jógee ci réew mi comme ni mu toll nii suñ ci ma amee luñ ci wax nga jóg di sama jarbaat ñëw ba ci yow dinaa ci wax man li ma ci xam. coow di nag ñun ñëpp ko bokk déggandoo. mooy problème mu annulation bi am démb ci làmb bi démb ci. ku ne di ci wax ñoom ni ma dégg ñu wax ci CNG lañ bëgg a te seen buñ ko ndese dañ koy tooñ wax nañ ci wax ju rëy nag ju bari waaye loolu nag xam na li ñu ko ñàkk la ci ñu am lu ñu def ci làmb parce que dañoo jël seen yëfi def ko ci làmb mënees na leen ko nangul waxee demee di nga noppal kiy diglu noppal ñëpp waaye doo jël rek waxta taxas genn wet mooy niñ communiquer mën nañ communiquer neneen lu gën a sedd wala nu ñu gën a xame noonu parce que lañ doon wax lu ci bari mën naa ñàkk parce que bi ma jàngatee seen wax ni ma dégg ñu wax ko mën naa ñàkk parce que ay millions kenn du ko jël di ko ruur ci suuf wala nga koy sànni te koo gis mu am ko day liggéey liggéey bi Sénégal daa yaatu ñi ne ci mbay mi ñi ne ci napp gi ñi ne ci fu ne ñi ne ci ñi ne fépp fu ci lu ci mën am nag lu man di xew rek pandémie dafa dugg ci àddina dugg ci àddina àddina bépp am problème Sénégal toog boobu ba léegi lu mat deux ans ngi nii mu toog boobu léegi ñëpp nekk ci président bi ak waa réew mi ak ñi ko dëkkee ak ñëpp kenn ku ne taxaw ba mu dikkee li mu njëkk def mooy tàllal loxoom ñi nga xam opposition lañ ca pale ba waxtaan ñoom ñoom it ñun ko ko mu yëkkati ay milliards dugal ko ah leer la programme bi njëkk mooy bourse familiale bi dañ ko jaarale te bari ku nekk ndakaaru gi ni mosuma ci maama ngi fay ko wala baayam wala mbokkam ca dëkk àll ba ndax sénégal rek du ndakaaru mi benn mbir pandémie bi xam ni tëj jëfe du solution parce que dëkk day am loisir man li ma gëm parce que loisir mooy comme làmb comme sport comme football comme musique du ñëpp cay dem sax waaye am na ñu ko bëgg ku ne nga dem ca parce que biñ ko tëjee bàyyi loolu politiciens yi ñoo taxaw ci télé yeeg rajo yi occupé débat bi biñ ko occupé am na fuñ ko dérapé ba fexe ba dugal ci xale yenn réew ba réew mi am ci yenn problème bi yooyu nag du jàllati buñ làmb ji yàqu na démb mais fi mu tàmbalee yàqu nañ ko wax. fan la fan la tàmbalee yàqu. voilà fi mu tàmbalee yàqu mooy làmb ji commandant Thioune mooy dox diggante police ak CNG. moo toog jot ko téléphone am nit woo bi président Bira ne ko Bira am na lu xew mun ko police de nee na ñëw di couvrir làmb ji. parce que dafa am lettre boo xam te ne mi ngi jóge DSP le 19 lañ ko bindan le 19 am na ñoo xam boobu ñu ngi ci période julli gi. pour ni moom léegi lieu public yeeg lieu euh, privé yi dañuy takk masque. biñ ko defee nag moom man nag néew ma loolu la police wax damaa jàpp sama jàpp bopp man ni police dafa jàpp ni làmb xañ na mën nañ bañ a takk masque te làmb te sécurité làmb it boo ko wax police moo koy assuré avant pendant et après avant bu police ñëwul làmb làmb mënul am. bu ko commandant Thioune waxee président Bira Bira ñëw samedi nag ku ñëwoon réunion CNG xam nga ni Bira bi ñuy réunion cinq minutes yu ne mu génn wax téléphone lu ma trente minutes di ko di ko toog ci réunion bi ba mu paree samedi midi. sa pièce bien moom midi. Bira xam ne di mënatul nekk police wax wax na wax mënatul ne jël téléphone am la def ñooñu doon wax yi promoteur kenn ku ne Bira woo na la wax. Hmm. leer la sa téléphone la la woo ni la course bi ne dañ koy annulé demee samedi laa la wax de avant dimanche ñoom ñu ko te ñoom ñoo na ñëw Bira li ko waral mooy rek wax information wax ko promoteur wax ko les ménagers mais dafa dem woo kuy promoteur mu woo la wax la ni la bés bi mënatul ne ñoom nañu wér seen téléphone wala ñu dóor ci kaamel ni Bira woowu leen kooku kon Bira def na li ko war. su fekkee nag Bira wax na la ko yow waxoo ko mbër mi waxoo promoteur ba promoteur bi ba mbër mi togg regroupement bi yaa ko yokkal ay frem parce que li dégg euh, ñoo ci dugal parce que boo déggee ñoom sax gis nga biñ taxaw am na ku taxaw ni waaw sama mbër nga ne bu subaa yi dem CNG ak yooyu mais làmb xam nga dem man dégg naa sax ñu koy wax ci benn télé di wax mais cas force majeure dafa am ci règlement CNG cas force majeure loo xamante ni day am ci làmb imprévu mbër mi war na bëre ñooñu ku laam dañ koy walak mais bëgg démb Assane Ndiaye tëggul lamb mbër mi damm dañoo remplacer combat bi loolay cas force majeure est ce que keneen ki taxaw ne ni man comme sama mbër dafa waaj dafa damm damay ñëw loolay cas force majeure dafa am ci règlement CNG. waaw police. maa ngi ñëw. biñ defee loolu Bira woo leen téléphone wax leen du mën a am ñoom ñoo war na informer seen man maay promoteur bi doo informer waa promoteur bi wax mbër mi ban ko yégee ñoom lañ war na woo ñeen ko seqal di leen làmb ji mootul am suba du am kon ñoom duñ toog regroupement duñ def waaye di wax ñii jóge nañ yoof joor rek ñi jóge nañ jiwaaloog ñii jóge nañ waaloog nangam yooyu yooyu bëriwul njariñ wax da wax li am njariñ wax li nga xam mooy dëgg wax li nga xam mooy li mën a ne parce que wax moom fii moom xolal micro yi du tribunal da ngay wax rek dem keneen di ko wax te boo waxee keneen ki wax dinañ xam lan mooy dëgg Bira loolu la jël téléphone en tant que président ku cherché wu kenn wax ko ñoom ñëpp ba kenn ku ne jot nit làmb ju am tey. làmb moom suba du am mooy mën nañ ko wax ñu ko seqal kon tey problème yi mën nañ bañ am. beneen bet nañ ko xam tey xam ko ëllëg bis bu see bis bu CNG taxawaat tamit police taxaw ñu ji du am. muy làmb mën di doon bis bu police du ñëw parce que sécurité avant sécurité pendant sécurité après la police di assuré. moom mënul am sans sécurité. beneen ñuy wax ci ay ay ay ay site internet woy dañoo tere làmb ci nit ñaa ngi baal nit ñaa ngi dem ci euh, biig ay baala fees dëgg la mais yow di nga génn guddi ma dinaa génn guddi ñëpp dañuy génn guddi ban ban euh, boîte ngay fekk ab gendarmerie toog wala police te làmb ban làmb ngay dem bu doo fekk police yeeg kii di jaxasoo ci biir kon lamb bokkul ak yooyu de lamb beneen affaire la beneen mbir la boo xamante ni bokkul ak yooyu kon foog police di assurer pendant avant et après foog ñett yooyu am bi ñu nag police ko ci la leen wax di leen yéen moom. loolu mënul ne kon mën nañ ko wax seen i ñoom dafa loolu yem fa mais defuñu loolu dañu fay dikk di indiwaat di guddali ji ak def yëf te yooyu laam mañ mënul lekk morom mi te ñorul. mais est-ce bi du fere yi nii fere ñoom promoteur yi fay police fay def frais de organisation ah, fay saat ah te dégg nan depuis pandémie bi am promoteurs yi nee nañ dimbale nañ secteurs yëpp ba mu des ñoom mais est-ce que loolu tamit ak combat ni mu yàggee du métti ci ñoom. am nga fere nga wax. ku bëgg akara foog nga ñeme kaani gis nga kiy jëndi conteneur am day fay billet dem Europe dem wuti yëfam ki bëgg ku ne la nga bëgg la sa xaalis bi mag moo gis muy dem amal xaalis a def promo ñoo bëgg a def promoteur lamb foog ñu am lu ñu def ki bëgg def leen foog mu am lu mu def mais frais gi ak président Bira bi mu ñëwee wàññi nañ ko de cinquante pour cent tous les frais yenn yi zéro pour cent. frais yi ñuy fay. doo ba ma laajee wax la waaw frais yi ñuy fay ñoom promoteurs yi et puis yu wax ni dimbali nañ bi dimbali nañ leen. promoteurs yi waaw te ñu wax ko bi pandémie bi amee président Macky Sall moo wax président moo wax ni leen Matar Ba ni ko nem leen dinaa leen jàppale. Matar Ba le ministre maa ngi koy nuyu au passage di nuyu président Bira bi mu ko waxee ñun dem ñun taxaw làmb toog ñu tàmbali. arène bee ñuy def nii tey muy Pape Sarr moom mu doon wax ak ñeneen Fallou Ndiaye ji doon tëgg ak ñëpp kenn mosu faa tëgg ba jox fa dërëm ren. fayu ñuy stade bi kenn du fay stade gratuite boo paree da ngay dem doo fay stade doo fay courant doo fay dara ma la benn anecdote. waaw làmb bi Fallou Ndiaye ji bi booy bi yor micro yi micro yi xam nga micro sans fil la batterie yi jeex. micro central bi xam nga ñetti micro lañ fay wàcc. batterie yi jeex mu wàcc booy bi dem fëgg CNG fekk CNG nekkuñu fa booy bi wàcc dikk moom gis nga promoteur batterie daa jeex 3500 faalu den du ko fay 3500 laa ay tam man kay rek moom ren du ko fay juróom benn juróom-ñaar téeméer la stade bi ba bu beeg léegi président Birane nee na kenn du fay yamuñu ca de. ak lan ak président Bira ñoom promoteur yooyu wax laaj leen lu ñu la jëndee woon licence daaw ren ji cinquante pour cent la leen la Bira wàññi ndax wax dañ ko. yamu ca de mbëri yooyu ngay gis ku daggan licence 1000 francs ren téeméer la kenn ku ne cinquante pour cent yamu ca de les ménages yooyu doon wax. la nga doon tafe la nga doon tafe ménage dañ la ko wàññi cinquante pour cent ren ngir pandémie bi kon président jàpp na ci wala ah. waaw mais li ma jaaxal stade bi. yamu ci promoteur yooyu ku daan tëgg làmb ak koo mën a doon téeméeri junni nga daan fay police yooyu nga doon wax. ak làmb ji lu mu néew néew doole. léegi bi gën a kii juróom fukki junni apaay combat yu mag yi ay Balla Gaye dëgg ñu mag yooyu mais ñu ndaw yi comme loolu Pape Sarr ñoom doon wax dem bu doon seen làmb bu doon ba ama bira téeméeri junni la léegi ak bira juróom fukki junni la waaye kii kay kii kay boo ko santul nag bu ko xarab y a pas mieux que ça moom man dama ko wax seen ko président li ngay wàññi dafa ëpp est-ce que wàññi wàññi du dina mujj. stade bi de moo ma ci jaaxal ndax loolu mosuma ko dégg. depuis que saison bi fayuñu. koo dem laaj ko ko ne ko ndax ren fayagun ngeen benn dërëm fayuñu courant balewuñ fo kii bu ñu xëyee bu ñu baree dañuy bala la ni mbalax dem kay lañ ndax naa euh, marché ba ci Touba da ngay jaay ba ngoon nga mbalax di dem. arène bi ci Pikine da ngay tëgg ba ngoon nga mbalax di dem. a bi ci Pikine waaye. Ah, da ngay tëgg di dem ah loolay loolu baax na de arène bi ci Pikine. Ah, bi ci Pikine ngay tëgg ba ngoon nga mbalax di dem kenn du la juuti ah kon kay ki fi ne jàmbaar la. loolu nag moo fi am loolu nag bu ko Birama ne Birama mënu ko le ministre sport moo ko man muy président muy muy Ba Matar Ba mënu ko mooy président de la République dégg naa ñuy wax ne bëggul làmb bu bëgg làmb bu bëggul làmb dina jël arène bisu 32 milliards da ko fi def. mais ñu am ci information ñu ne ministre bi yëgul annulation bi dem du ma ministre bi nekk ministre mais dégg naa ministre bi yaram dafa sutante nit nag bu yaram na information yu ko ko jarul yëg te nag bu wulul mbéjjën bi du ko wokkutoo Bira te kilifa la homme de consensus la nit ku jub la nit ku baax la te dim def kera noonu taxaw jël téléphone am réunion bi bàyyi ko di woote di cordé di cordé ba mu leer kon li fii mënatul nekk mu wax leen ko ñoom loolu bu doon nit ku bu doon du ko def te nag boolul bee jëm di ko wokkato am déet te boobu loolu la bu fekkee moom dafa am yaram sut am na yoo xam ni bu yaram sutaat am na yoo xam mën nañ ko ko bañ yégal te Bira deful lenn lu exceptionnel cas force majeure boo amee ci lamb dañ koy amul force de dañ koy annulé am na sax yu gën a ndaw gis nga bu fi kenn dikkan nañ arbitre ni dolli socio promoteur nga bañ koo dolli CNG danaa ko làmb du am tey lu am na yeneen règlement yëpp mi ngi ci texte yi mi ngi ci règlement yi. règlement ba ki démb bi sa Thiès di tëgg di bàkku. Moussa Ndoye bàkk waaj waaj day bëri gis nga soxla faa man règlement may nañu ñun bu mu mu taxaw bu ko arrêté wul ñu jël ko génne ko làmb ji sax te loolu lu ne xaj na ca. léegi ak yéen CNG euh, ci lu gaaw rek fan ngeen toll ak promoteur bi. waaw fi ñu toll amaat date wala. avant yàq bu jur kii ndogg gu ñoragul la man du ma ko seppi du ma ko laal damay bàyyi bañ jot parce que CNG du liggéey samedi boobu ñuy wax du liggéey dimanche lundi sax du ko liggéey ku fay jël xaalis ba du ñoom nee nañ dem i visée demi gàmmu demi ngénte am i dëj kenn ku def li nga def président moom réew mi am ay renseignement du génn dem xool yi waa réew mi wala fa wala wala wala Fouta daa bokkul Sénégal day génn comme tout le monde fi amoon gàmmu gàmmu nga ku fi amoon dëj dëj nga ku fi amoon ngénte doon nga ngénte da doon dox moomu def lépp dikk na làmbam takkul masque deful dara kon président bu waree wër réew mi day wër réew mi pandémie bi réew mi lu ñu fi indi la nañ ñaan yàlla mu génn fi te rafetal suñu xol yi xam ne njiit sàkkul boobu yàllaay sàkk njiit gis nga boo bëggee bu yàlla ne nga ni déet déet lay déetel nañ rafetal seen xol yooyu te xam ne président kenn lenn ku bëgg réew mi la lu mu jëlee bitim réew ci réew mi la ko delloo lu mu jëlee ci réew mi delloo te ku ñu wax président bëggul làmb yaa bëggul làmb wala bëggoo sa bopp. am na ñetti date yu jëm ci kanam ci lugaaw gaaw le 31 première la 7 yooyu CNG ba tey day day am wala. waaw mais pourquoi parce lu ko fi annulé gul dara du ko annulé ci problème démb bu police ne woon àcc CNG dina àcc bu police ne déedéet nag CNG yooyu ñu naa baal yi am parce que làmb jëw gis nga police dañu leen seen ci kaw tribune yi police yi nekk ak ñun ci yi fu mbër taxaw ñu taxaw fa entouré ah, enceinte bi loolu amul ci football loolu amul ci fête amul ci football amul ci feneen kon ñun il faut ñu sécurité ñun ñoom kay li ñu wax mooy bi Bera ñëwee dañ doon fay fukki dërëm ñi ngi fay ñaar fukk waaye bi Bera ñëwee lu ñu doon fay fukk Bera defal ñu leen ko juróom wàññi leen lépp defal leen condition yu normal ñu dikk di xarab bu ñuy xarab nañ xarab keneen wala ñu xool seen bopp léegi bu ne kum olof dafa ne boo ko ci kaw fas toog ca kaw tegganaat teggee kaw fas wa ko teg ma ngay bëgg a ayca loolu loolu dinañ ko dégg gaa <laughs> gaa yi dégg la fa waagaan na moom sama mbokk village wala xam na li nga wax léegi euh, mbaa duñ wax kumba am ndey kumba amul ndey ñu fomb làmb ji démb yi ñu jëm am déet loolu man duma ci ay kumba am ndey kumba parce que ñoom wax nañ sax ba tekkee da nga nangam nangam mais buy <laughs> ma gis nga wax lu mu bare na ko amee njariñ wax doon wax démb bariwul njariñ duñ euh, koy waxeeti làmbi baal Gaye mënu yem ak làmb yaawu jàll xam nga li ma la wax promoteur yi beneen bi nañ defatal seen xol yi bu fekkee ban li ma gis ñu koy sànni ay xeer jëm ci am gas noo ko def yëf nañ nungu gas ba fi dara nekkoon mi moog sëñ Mourou Niang ku ne leen war a delloo njukkal am sa ñetti dërëm ak am sa dajale say xaalis di ki tëgg làmb day tànqal nit ñi gis nga bëri ko bu deful dara day bëri bur wi nañ rafetal seen xol yooyu lañ am ku ne la nga am ngeen dugg ko marché ñu rafetal der seen ñu rafetal jabi dugg ko ci saw mi dugg ko ci jabi mais ku ci am problème ba koo ko jiñ état état deful kenn lenn seen deful kenn lenn ku bana tëgg ku doon tëgg làmb amatoo doole tëgg làmb nga dem toog jaay sa soble wala nga président deful kenn lenn réew mi tëgg làmb dong nekk fi am na ñu jaay soble am ñu jaay tamaate am am ñu jaay poto làmb waaye boo dajale si ñetti dërëm dikk rek taxaw dëgg naa làmb daal man télévision nangam nangam ah tànga peet lan nañ moytu sax yenn plateau yi fi wax parce que na naa yenn plateau yi fi wax bëgg ndéem damaa mujj tiit sax yéen i woon yi ay appel à l'instruction naa buñ ko nangam nangam. loolu baax rek yow gis nga li mais yi wax mën naa ñàkk réew ñoo ko bokk am réew moo ko nenayam am nen bu ko mbooloo bokkee baxal doo la da kontaan nañu mbokku internet ya ni ngeen ko xamee Alaaji Xaaye moom nag daa bokk ci làmb lu jiitu muy bokk ci CNG comme ni mu ko waxee ci bi ñuy tàmbali ko looy tàggoo. waaye li may tàgg mooy gërëm la rek gërëm it mbokk yëpp di wax ne tamit wax ji bu fekkee xaw na dëgër tamit ñu baal ne noonu lañ ko sentir noonu lañ ko waxee bu ci amee ñu jéggal ñu leeralaat encore une fois porte parole CNG mais dama bokk ci CNG bokk ci làmb bien avant kon bu amee lu jóg ci làmb yow ngay sama jarbaat ñëw ci man mbëkk fam jot lay dal comme jot ga ma dama ciy wax li ma ci xam waaye lii ma la wax moom ci stade bi kenn du dindi ba beeg léegi président Bira kenn mosu faa fay benn dërëm promoteur Fallou Ndiaye batterie yi jeex na mu ne du ko joxe ku fay leneen te fay téeméeri junni ci làmb yi comme làmb yi junni la doon fay juróom fukki junni lañu waroon fay loolu ñu naa joxe xam nga dégg naa dem ku naa joxe naa ndékki joxe nañ añ sandwich laaj li duñ joxe et boo joxee jëluñu et puis frais d'organisation nañ ko teg fee ku fare gis nga yaa nga fee ci mondial yi ku frais d'organisation foog mu am ci ku looy liggéey di nga am frais d'organisation ñun pandémie bi xoolal sio yi am mondial bi dégg naa koy wax démb ñu ngi koy def mais nañ xool véhicule lañ koy defee kon nañ ñaan yàlla li fi des ci weer combat yi ñu ko mu jeex promoteur yi dimbali nañ leen encore une fois nañ ko waxaat 20 millions lañ génne Pape Abdou juróom millions lañ ko jox képp ko xam sa combat desen na ci biir loolu. pandémie bi pandémie bi juróom million lañ jox ndax lamb secteur am ji tey yeneen yeneen promoteurs yi kenn ku ne ñaari million tamit jox nañ la nañ koy waxaale Pape Abdou Fall am na woon na tuuti wax ko waaye ñeneen ñi a wax te ñooñu ku fasal xaalis desen ñaari million million tudd million melo woon ñu tudd nañuy wax li président def ci lu baax buñ ko mari buñ waaye di xarab rek te doo wax lu ko fi may taxaw Fallou mu jël moom moom xolal gis nga ko moytu bu baax na ko fi jëlee ñaar a mu jur 7 millions boole wàll ci Wade wasalaam. jërëjëf kontaan nañu bu baax mbokk yi ah, El Hadj Khaye Gueye lañ leen indi leen tey leer na li mu wax ci jëlee ko ci CNG lan fa mën a xam te li mu ci wax li mu ci wax nag loolu la ñuy gëm ndax fa la nekk. Euh, la la fa xew xam na ko ci ci coow li mbokk yi ñu santaat leen rek gërëm leen baaluwaat leen àq ci julli gii nu jugee. di leen jox dig daje suba rek wala wala léegi ci kanam ndax am na fun jëm incha allah. te gars yi takk masque waaw masque yi. waaw na ñuy takk masque di raayoo sel. boo demee ba ñëw raxasu. waaw waaw raxasu bay génn raxasu. ñaan pandémie bi yem. ñu écoulé li fi des ci stade bi li ci làmb yi. làmb ji jeex ñu bëre bëre ñi daan daan ñi daanu daanu que le meilleur gagne. wasalaam waagaan ci caméraman seen mbokk seen xarit Mbaye Diop jërë ngeen